الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن كتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية وتوفيق من شاء النعمة منه والفضل هذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا متمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته على خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين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 mooy ñu ngi sant yàlla sant bu amut app amut dayo waaye di julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak waa kiram yi ak saxaabaam ak képp ko xam ne yaa ngi topp si sunnaam ba ilaa yowmal qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla boole si yooyu waaye yàlla ñu xëy jaam indi ko fanaanoo ko yàlla mi jaamal yàlla ci gir gi bi waaye fi waaye nekk di jaamat yàlla mi saafara yàlla ñu boole may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu may aafiya waaye may ko bépp doomi adama si kaw waaye jullit yi yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla leeral seen bàmmeel waaye yàlla subhaana taala def seen bàmmeel mu nekk rawdatun min riyaadil janna amin ya rab ndaw yàlla saama leen aar leen lax leen fiyaa egut yàlla subhaana taala warsaga leen xam-xam warsaga leen liggéey warsaga leen andandoor yu baax jigéen yi yàlla saama leen aar leen yàlla subhaana taala boole ñu ñëpp defal ñu xéewali àddina xéewali àllaxira mu safara moo si daaray Muhammad sallallahu alayhi wa ñuy ndokkale ñëpp si bés bu maaga bi di ajuma bu njëkk si at bu bés bi macha allah yal nañ ko fekke ajuma yu bëree bëree bëri bëri alhamdulilah rek yëpp sant yàlla mi nga xam ne moo ñu ko may bi fekki waat ko mbokku julliti waaye ñu ñaan yàlla ñu fekki ko ay at yu bëri ah muy bés bi nga xam ne rek moo gën si bés yëpp yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne aksiru salaata alayya yowmal jumaa wa laylatul jumaa fa inna salaatukum maaruta alayya xakañ ah, mën nañ bëri ñoo julli si moom guddi ajuma ba si ajuma ba waxtu timis ba ndik lu am solo ngi di mbokk julli yokkute jéegal baakaar jegeñ sa borom sa borom nga julli benn yoon si yonent bi sa mu julli si yow fukki yoon wala mu wàcce si yow fukki yërmande subhanallah kon loolu war naa tamit nit ki war a gën a góorgóorlu ba si ajuma fu mu toog mu ngi toog mu ngi taxaw mu ngi dox a ah nay bari lu moo julli si yonent bi alayhi salaatu salaam si laamiñam eh, ndik ay yokkati rek la ay xéewal rek la te bokk na si ki nga xam ne eh, yàlla mun na laa baaxee nga nekk àndandooram sa arjana mooy ki gën a baril moo julli si moom ahakañ lu yomb la mbokk jullit allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahuma salli wa sallim wa barik alay bon mbokk jullit yi ñu del si waat si suñu waxtaan bi li nga xam ne mooy eh, si jamono buñ nekk ndik waxtu bu nekk rek dañoo seet jamono bi lum laaj si waxtu buñ nekk rek ñu see gën a waxtaan jamono ji comme ni ma ko waxee rek xale yaa ngi tëj school école yaa ngi tëj xale yaa ngi neka sibir kerye legi ñuegena sibiti ɗi dohi ɗi anda ak ay andador yépp wonno ñoo mëna xool seet xale yooyu ñan la ñoo àndal mbokk julliti galaa bi ngeen jàngale aya bi démba ma xawlu ko anna rafiqu waxid min rafaqai su qad yasilu bil insaani ila jahannam ila jahannam abadin mbokki julliti ndax xam nañ ni àndandoor bu bon àndandoor boo xam ne du la digal lu baax moom mu si di lay jay rek soo loo xam ne óor na la lim laa wax du dëgga ngay def rek mu ne xanaa xamuloo ko mun na laa dugal safara boo xam ne danga faa nekk bi faw waxa kañ ndig lan bonaayam bi génne la si yooni siraatal mustaqim waxtu bu nekk rek mu ngi lay sox suxal di lay jay rek nga foog ne yaa fa nekk waaw te fekk ndeysaan bu mbiri tàngi rek mu roccee ko bàyyi la fi te gis loolu lu bari bari bari mu mu ne nag si alquran yàlla ñaari seytaane lañu wax waaye ñaari seytaane yooyu dafa am bu si garaaw mooy seytaan dañuy am seytaane ins waaye seytaane seytaane jin seytaane ins nag maanaam seytaane doomi aadama moo gën a garaaw seytaane jine subhanallah loolu suñu la ko waxee da ngaa ne déedéet xam nañ ne seytaane ku bon la bi doo gis kenn ku am doom ne suma doom ne seytaane laa ko tuddee wala iblis laa ko tuddee déedéet parce que bon bi mu bon na tax waaw sori bi ko yàlla suma taala sori loo boppaam ni ko yàlla suma taala sori yërmaande si moom seytaane boobu moo tax bi kenn bu du tuddee doomam seytaan wala sax mu lay jegeñ waaye nag bi gën a garaaw yàlla suma taala bu ñuy wax si ñaari seytaane yi ban la jiital mooy seytaane eh, eh, doomi aadama seytaane doomi aadama la yàlla jiital si seytaane jinne bon loolu mu ngi laa woon yàlla subhanahu wa taala mu ngi laa woon bi gën a dangereux bi gën garaaw bi gën a bon bi gën soxor bi nga xam ne mu ngi lekk comme yow mu ngi naan comme yow mu ngi solu kom yow foo dem mu ànd ak yow waaye du la jubal si lu baax mukk du la jubal si lu baax mukk mu ne nag seytaane doomi aadama mooy kan ahamiyatuhu taqdimu xutwatun taqdimu uluhiyatun inna sheytaana ins axtar mu ne seytaane doomu aadama nag moo gën a dangereux waaw si seytaane jine mooy anandoor bu bon daf lay jël di la doxal doxloo jéego ba gannaaw jéego maanaam tey bu la indee si jotaay bii fekk jotaay bi du jotaay bu baax de ëllëg mu yóbbu si jotaay a bon boobu nga koy topp rek marxala baada marxala waaw léegi mu indi ay ay kalima ay baat ay baat yoo xam ne jow la wala ne la nañ dem seeti e, njabraankat bi le maanaam su demee si mu ne am naa amal naa la buxaaba bu mag wala sëriñ bu mag su jógee si kii yóbbu la si ko yoo xam ne dangay dem ba génne la si imaan génne sa comme yàlla ndik lan dangay dem ba too gomati yàlla yaa ngi gom mbiri njabraan bi te loolu dafa bari suñu jamono léegi te mbokk jullit yi am na ko xam ne mu ngi julli julli julli juróomi si bés bi waaye gomu dara du sëriñantu mbiram yëpp sëriñantu ndax kooku julleem dina nangu abadan du nangu ndik yonent bi sallallahu alayhi mu ne ku dem si njabraankat wala gisaankat mu wax la nga gom ko mel na ni weddi nga li yàlla subhanahu wa taala yónni yonent la te di julli ñeen fukki guddi yàlla du nangu sa julli soo dee si diggante bi nag parce que di nga weddi ku weddi lan la mooy ki nga xam ne gëmut mun a seetaane doomi aadama nag moo laa yóbbu si loolu waaye du seetaane jinne de seetaane doomi aadama nag moo laa yóbbu xakañ ah am naa ku baax naa la gunge foofu nañ ànda nga toppi ko mu ngi yaax sa mu ngi yaax sa gëm mu ngi wàññi sa imaan sa gëm yàlla ngi wàññeeku rek ndik ni nga gën demee si rab yooyu nga yakaar ne ñooy bu xaaba yi ñooy lii ñu ngi gën a wàññi sa parce que dañ laa gëm loolu xam ne dafa xaraam moo tax mu ne dafa ko aw suu waaw daf lay jëlee si bàkkaar bu ndaw yóbbu la si bàkkaar bu mag waaye daf lay yoon jëlee si yoon siraatul mustaqim yoon la si yoon yoon bi nga xam mooy yoon bu dënga lan la yàlla subhaana taala wax si ñooñu mu ne keroog nag yomal kiyaama kooku nga xam ne moo la doon suux suuxal kooku nga xam ne la doon dugal kooku nga xam ne moo la doon yóbbu si place si béréb yu bon yi nga ko ko soo toppa di la jowloo di la yaaxaloo doomi aadama gis na kii ndeysaan doomam bi ah kañ raw na sa doom si njàng nga ne duma ko seetaan naa ko yóbbu yaaxa doomam bi loolu yëpp gis nañ ko te kan la faa yóbbu sa xarit moo la faa ah am naa ko xam suñ demee kooku na ko def loo xam ne bi du ko njëriñ te dafa am liggéey boobu dafa am ku ne ku ko weddi da nga gëmuloo yàlla ndik yàlla subhaana jox na seytaan doole boobu nga xam ne mun naa def yu bon yooyu waaye ka koy toppa nag kooku dafa fekk ne gëm yàlla nekku ci moom yaakaar yàlla nekku ci moom óolu yàlla nekku ci moom nekkaatul jullit yàlla subhaana taala wax si alquran ne mu ne ñooñu nag ñoo ñi àndoon si yu bon yooyu déglu lan la wax subhaana taala wax si idin baaduhum li baadi aduwun illa al muttaqun illa al muttaqin waaw mu ne ñooñu nga xam ne ñoo àndoon si seen ñaaw ñaawteef yooyu kero yomal xiyaama ñoom ñoo ku nekk mooy nekk noonu moromam ku nekk di wax ne yaa ma ci dugal déedéet yaa ma yóbbu woon yóbbu ma la woon yaa àndoon man ñoomi neen ñu commencé nag di dagga sante ku nekk di tuuma sa morom ku nekk di wax sa morom lu ñaaw yàlla ba mu des ñi nga xam ne dañ àndoon te yàlla tax mbokk julliti booy ànd ak nit ki ne jubal na ànd ak yow si mbiri yàlla ne la ne yàlla ne yonente bi ne yàlla ne yonente bi ne rek ku àndal si ku lay wax lu rek xamal ne ko yomal qiyaama yéen la yàlla subhaanahu wa taala di ooy muttaqiin yéen a yéen ñi ragal yàlla waaye ñi nga xam ne dañ laa yóbbu si ñoo xam ne dañoo gé dañoo wàññi sa gëm yàlla di wàññi sa imaan nga toppale si loolu kër yomal xiyaama da ngeen a jàkkaaroo yu ñaar ku nekk di joxoñ sa morom yow la yaa ma def lii defu ma la ko yaa ma toppoon topp ma la maa la yóbbu woon yóbbu ma la fekk nag yaa layta mooy ay suma xamoon mooy aaya bi njëkkoon wax nga ne ay suma xamoon yaa layta suma xamoon duma ànd ak duma jël kii àndandoor yaa duma jël kii xarit yaa layta kii du nekk suma waay suma xamoon suma xamoon moo tax mu ne nag yàlla subhaanahu wa taala mu ne nag kere yomal qiyaama ñooñu nag nekk ku nekk nag di joxoñ sa morom mu ne waaye ba mu des ñoom ñu nekk ku nekk nekk sa nooni bopp nag sa sa nooni morom ku nekk ñooñu nga xam ne ñoo di def bo ñu di ànd si yoo xam ne yàlla bëgg ko yonent bi sallallahu ko ñoom ñu nekk ay noon adu ku nekk nag di sib sa morom ku nekk xeet sa morom ku nekk du bugg a gis moromam parce que fa ñoo dem ñoom ñaar fen baaxu ci yàlla ñu yàlla musa si loolu yàlla ñu yàlla musa si àndandoo bon mu ne nag illal muttaqin ba mu des ñi ragal yàlla yi mbokki jullit yi loolu nit waaye mun a digal te digal lu ragal yàlla rek daf lay na ragalal yàlla ragal yàlla ku gën a gën ragal yàlla rek gën laa jege yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala mu ne ku ma ragal àdduna ma ñu ma ñu ma ñeme loola suma boppa allahira waaye ku ma ñeme àdduna allahira ma ragal loola suma boppa سوني من يالا ادونا في الله خير نغا رغال صبرم واي كو رغال صبرم في ادونا الله خير يالا جميل لا بوبام يالا نيالا بونا سيغا خامن نلا نيمال بوب سين بوبا يوم القيامه يالا تيتيون الصراط المستقيم يالا يالا ماي اندور يوبا يالا يالا ماي اندور يوب يالا سبحانه وتعالى تيتيون الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين امين